toujours dans votre acte du jour de ce 17 septembre 2024 suñ fa jógee dama bëgg ñu seetaani li nga xamante ni mooy kaddu Ahmed Khalifa Niass yu mu yëkkati foofa ca gàmmu lew na ñaseen nañ déglu ji Ahmed Khalifa ginnaaw bi nga xamante ni daal yëkkati na fa daal beneen polémique boo xamante ni daal juraat na polémique ci réew mi nañ déglu ji Ahmed Khalifa Niass dellu si waat tudd ci ndaw suñu wax Adji ay waajuram nekk taalibi ci kër gi man en tant ko xam ne kilifa ndaw soosu laa dama jël sama responsabilité may ko Sonko takkal naa ko ko may naa ko ko waa du ngeen yëngal seen loxoy yi sax waaw ah waaw do yokk tuuti bokk waaw ndax benn ankay ah, ndax benn daf koy lew daf koy lew bu bëggee mu bësal ko mën na koo bësal fekk yaramam dagan ko ba mën koo bësal bu defee ay graisse yeew ak yooyu yëpp dootu ko soxla kon ñoo ko déggandoo muy ay kàddu Ahmed Khalifa Niass ginnaaw bu mu tuddee xale boobu ñu tuddee Adji Sarr muy taalibe baay bokk ci ñoom moom mi kilifaam la kon ci bésu gàmm bi moom daal dagal na digganteem ak kii nga xamante ni maanaam mooy leaderu parti Pastef en tout cas ay kàddu Ahmed Khalifa Niass la ndax sëy bi dagal na wala daganul en tout cas Ahmed Khalifa Niass moo ko yëkkati te bu mu ko yëkkatee daal jur na polémique man nag duma ma ci commenté yéen laay bàyyi ngeen ko. <laughs>